sa soppe ku la bëgg lool muy Cheikh Sidil Maxtar Sylla mii nga xam ni tey bi muy ñëw ànd naag mbooloo mu bari def délégation boo xam ni bàyyi ko wakaam ay oto yu ndaw waaye kaar itam boo xam ni ñi yor liggéeyu Serigne Touba bi ca Wakaam muy fédération bi ak jëwriñ bi ak ñi ko yàlla booleel ci liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba ñoom ñëpp ñu ngi ci jotaay bi ñëw ngir ziyaar si la def ko na mu ko defe woon daaw itam ñooñuy yëkkati xaside itam ci mbooloo mi lañu bokk Mbacke Cheikh Sidi Muxtaar mu ngi liggéey liggéey boo xam ni ca Wakaam tey ma nga fay amal màggal goo xam ni màggalu Touba Wakaam lañ koy tudde at yi weesu ma nga fay dajale kuréelu xasida goo xam ni toll na ci jëy sul yoo xam ni bu cérémonie bi tàmbalee ñoom ñëpp dañuy toog ñu yëkkite xasaayit ñëpp di ko foo fekk mu fay liggéeyal samaam liggéey boo xam ni li tax jëwriñu daayira yi ak mbooloo mi ak moom jikkoom ak mbaaxam ak taxawaayam foofa moo waral ñum ñëpp ñu ànd ak moom ñëw di koo xam ni kër gu mu dugg foofu danañ ko ubbil buntu kër yi waaye semaine bu bu jot itam soxna yee toog ak góor yàlla yi dana nu daje këram jàng xasida mu togg ay bernde jox loolu dana la ko seedeel mbakke li ñuy sàkk nag ci sa jëmm mooy nga ñaanal lu ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér am na taxawaay boo xam ne fee ca wakkaam ba fa ñëwee kenn jëppiwu ñun nag xew-xew yee xew foofu yëpp lu ci bari danañ ko fekk waaye moom mii ñafa fa ne bokk bokkuñu ci yoon wi bu bis bi jotee jaraaf yi ak ndey ji réew yi ak saltige yi ñoom ñëpp danañ ànd moom ci bis boobu kon damay ubbi kaddu gi rek bàyyi ak sëñ Mamoun waaye sëñ Amdi Silla jëwriñ mu ngi fi ñooma am di Moustapha moom it mu ngi fi Cheikh siise mu ngi fi Cheikh Abdou Mbeng mi nga xam ni moom la ñu fayee Cheikh Abdoulaye Mbacke borom dër bi moom it mu ngi fi ak ñeneen ñoom ñëpp ñu ngi ci jotaay bi ñoom Cheikh Samba Diarra sëñ Mamour Rakkam ñoom ñëpp ñi war a ànd yëpp ñëw nañu. ginnaaw bi nu sant yàlla sunu borom ñu julli ci sangi sangi Seyduna Muhammad noo ngi dellu nag di santaat Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaanal Serigne Mountakha mu yaaj fi loolu te ànd ak wér ba li mu naaj ci lislaam bi naal ko liggéey sëñ Tuubaa mu àggale koog sagoom te nu ànd koog moom di siyaare bu baaxit it jëwriñam bii toog jàmbaaru fàkk dëkk gii di kenn ci yoon wi muy Cheikh Mamadou Bassir moom Serigne Abdoul Khadir ginnaaw Mbàkke buñ la siyaaree te di la ñaanal yàlla sàmm la te aar la yàlla guddal sa fan Mbàkke te wéral la ba yéene jii sa kilifa yi am ci yow ba yëkkat liggéey bu tedd bii teg ko ci sa loxo Mbàkke yàlla nañ ko yàlla yàlla nañ ko àggale yóbbu ko foo xam ni kawe na seeni njort ndax bu ne yàlla na yan bi oyof kon day mel ni liggéey bi ngay séen mu jëmm da koo xamul ndax liggéey sëñ Tuubaa moo mënta oyof waaye nag yàlla na la ko sëriñ bi téye boppam te loolu Mbàkke rafet nañ ci njort ndax lan ni sa pas-pas ni sa taxawaay ak sa dëggal ci sa digganteek sëriñ bi Serigne Makhtar Sylla nag mii toog di Cheikh Sidi Makhtar Sylla ñu gën koo miin ci seexu Asrar di sa taalibe di sa doom di sa lépp daje bi dara warulu ko lu dul ñëw ànd ak mboolem kuréel yi waa Wakaam yi ak mboolem dayre yi mboolem kuréel xaside yi ak waa Kër Sëñ Touba buñ tuddee sëñ Amdi Sylla mii wax seex Abdou mii mii nga xam dañ koo duppe sëñ Blaye borom dër bi mel na ni tudd naa ñëpp moom nag dikk gi. li ci jiitu mooy Mbàkke feddali laxasaay yeesaluk taalibe yeesal pas-pasam ngir kat sa taxawaay ci moom ak am gim la am def la ngay kilifaam di léppam loola kanam rek la ko jëmee waaye gisu ci benn yoon loo xam ni dana wàññi daraam ndax yow képp koo xam ne bëgg na sëñ Tubaa ba agsi ci yow pas-pasam day yokk ndax yow eh, eh, Mbàkke fii nga toog bëggoo dara xooloo dara yëg-yëg yi nit am ci àddina sax yow danga nga koo weesu yow benn yëg nga am muy sëriñ bi sëñ Moussa Ka moo waxoon nag sëriñ bi waa ji ko gisoon na gisub xol koo mën a tee gis mu sew ci sam xel sëriñ bi waa ji ko gis mu gis la koo mën a tee gis it du tax mu doy la sëriñ bi ku ko mos mu mos la koo mën a tee mos it du tax mu saf la waaye sëriñ bi ku ko am te ñàkk ko koo mën a tee ñàkk du tax ni nga faale ko yow nag Mbàkke foofu nga ne yow benn pas-pas nga am benn jubluwaay nga am benn bëgg-bëgg nga am muy jëmmi sëñ tubaa moom mii nag jaayante gi mu jaayanteeg yow bàyyi ak léppam ak ñëppam ak féppam loolu nag def gi mu ko def defu ko ngir Serigne Bassirou Abdou Khadir mi yor na kàddu yoonu murit mbaa Serigne Bassirou Abdou Khadir ni porte parole déedéet doomi Serigne Abdou Khadir ji nga xam ni day murit saadix léggéel Serigne tubaa bàyyi ay kilifaam gërëm ko yëkkati garaat yi takkal ko koo kii moom la Serigne Matar jox boppam kon nag bu àndaate ñii ñëw taxaw fi sa kanam ñuy bis bi nga xam ni at bu jot dañ koy amal muy màggalu Serigne Touba gu mag gi nga xam ni da koy amal ca Wakaam moo di wax dëgg la kuréelu sun yàggees na koo dégg waaye nag ci biir mbooloom laa ko njëkk a gisee ñetti téeméeri ni ak fok ak ñett ñu daajandoo jës bu xulóob jàng ko ci benn barab murit yëpp toog di déglu loolu moo fay am te lu mel noonu nag mbàkke bu amee wax dëgg yàlla sunu tawféex la sunu yokkute la mu ñëw nag ànd ak mboole mbokk yi mu am yëpp sëriñ Jili nag mii nga xam ni day kenn ci moom di kenn ci yow ànd ak sëñ Xaadim Jaañ mii di wóllëreem sëriñ Mamoore ngi nii toog di rakkam ñoom ñaar ñu bokk lépp waaye moom it mu jël léppam jébbalaat ko ko kon nag bis boobu nag Mbàkke moom lañ jublu di ko waaj war koo def kañ le onze de euh, février daaw nag ci waxtu wi danoo daje fi sa kanam bi nu ñëwee nii lañ toogee woon ñu fekkaat la nga toog nii lañ ca war a jàllale ñu jàllale ko bi nu noppee jébbal kaddu gi loonu wax nu nu def noonu boo nee nan nan ko wéyale ñu wéyale ko boo nee ñu teg ci suuf ñu jugee fii teggee fi dem mureel ca tool ya defal la li nga bëgg ndax moom kat nee na dafa jaayante te ab murit nag pas-pas la am ak liggéeyal sëñ Tuubaa lu ko kilifaam wax rek loolu lay def cinq sànq léegi dama ko ne ba xam dañuy yëkkati kàddu gi jox la mu ne ma man euh, awma ci kàddu nanu déglu sëriñ bi jarul kenn di wax li li sëñ bi wax nan ko def ndax nag sëñ bi moo ni wa intu jaalis man yakunu akbara min koy xaawilu saamanan wa tara ka ka an yoro mursalan li xaaja wax dii loolu lillaay tilkal xaaja waaye daal sëñ Matar mii ab taalibe la ab la nit ku dëggal la benn bis nag damay waxtaan ak moom ndax nag moom damaa yàgg moom lool waaw bokk naa ci ñi njëkk a jaxasoo moom waaye fi nga koy gis nii pas-pas ci sëñ Tuubaa moom mën naa ne da koo judduwaale bi muy ndaw la loolu ne ci moom musa def lu matadi di musa def lu manqué daan nañ nekk ci jamono tolluwaay am bañ na ko tee ñoo def nangam mu ne ma su ma ko defee bi sangam sëriñ Tuubaa mën na maa teralee lu ëpp loolu te te te damay bañ jër sama ginnaaw dara di ci am eh, kersa te nag kenn ku ne. li nga xam ne yàlla bind na ko te di ko ci jot te it bi may liggéeyal moo na yàlla waxab la ko maaraamu muy wax di xawaay jëla sii na daamoo fii xin mati waxab la ko maaraamu mu ne gannaaw nag maa ngi ci te maa ngi jéem xam naa ne tawfeex sëñ Tuubaa nag danaa daje ak moom te loolu nag Mbàkke sunu jotaay bi ak yow doon nañ sëkk firnde doon nañ sëkk taxawaay kon nag Balla Aïssa noo ngi lay sant la gërëm sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah ne ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp ñi ngi nuyu mbokki taalibe yëpp rawatina waa Ndakaaru gépp rawatina nag yéen ñi nga xam yéen a bàyyi ko ca Wakaam sëriñ bi nee na mi ngi yëkkati ay kàddu yu nuyoo ak ay kàddu yu cant ak i ngërëm di ko teg ci loxo sëriñ Sidi Muxtaar ak mboolem ñi mu àndal ñëpp sëriñ bi ne bàyyiwunu kenn nee na buñ ci tuddee sëñ am di silla buñ ci tuddee sëriñ am di sill mi nga xam ni way juram la nee na te nekkal sëriñ bi ci barab ba ak sëñ Abdou Khadir ñang mii nee na ak sëñ Khadim Diagne ak mboolem mbokki taalibe yëpp sëriñ bi nee te ko sant bu baax neena na it sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba ci ni fekkee gim ni ko fekkeeloo nee na ci fekkee gii nga xam ni fekkee wat nañ ko tey tey ñaan ni fekkee ko ay ati at muy ci bisam bii nga xam ni mi koy def di ci liggéeyal la sëñ Touba ndax nee na liggéeyal la sëñ Touba sëñ bi nee na la ca jiitu mooy jàng alxuraan gii ñu ciy def ak nee na xasida yi nga xam ko ciy jàng rawatina nag nii nii ñu koy jëmmalee nee na ci jëy sun boobee nga xam ni nga xam ni ab lim bu màgg la ci lislaam rawatina nag ci sëñ Touba sëñ bi nee na kon nee na kon loolu bisub sëñ Touba la sëñ bi nee na berne yim ciy def itam ngir mu tasaaroo ci ñëpp loola tuyaaba ci kenn xamul nu mu toll nee na kon ñu ngi koy santaat bu baax nee na sëñ Sidi Mokhtar si la ñu ngi lay gërëm ci sa taxawaay nee na ndax sëñ Abdou Lahad daa wax ni nit melul na mu wax na mu jëfee la mel nee na waaye sëñ Makhtar si la muy jëfam yóbbaale na ay waxam neena na te la ca ëpp solo nee na ndax ni xam ngeen. ni mu bokkee ci yoon wi nee na ndax sëriñ bi moom kenn ñu wut a bokk ak moom waaye nag xam ngeen li mu bokkee ak yoon wi nee na ndax loola moom kenn ñu wu ko wax nee na ndax lépp dañ koy jaay jëndee ko ak taalube waaye nag moom mii ku dëju ci biir yoon wi la nee na ku diggu ci biir yoon wi la te it nee mbokkum ñépp la te it boroom xam-xam la it. nee kon nag bu jëlee lépp xam ni lii jariñe mooy ak taalube nee mu sóobu ci loolu te nee na la ca njëkk ginnaaw bi sëriñ mu ñibbisee Touba dafa am ci mbokki taalibe yi koo xam ne day xool Cheikh Mamadou Moustapha ba ci yàgg Mbàkke Balla mu yërëm ko lool mu ne ko Mbàkke dama laa ñeewantal ndax yan wi dafa diis damaa bëggoon wax ma lu ma la ciy dimbalee mu ne ko lii ci lii ci ci jiitu de mooy fexe ba defar sa jëmm mu ne ko boo ko defee rek dimbali ma nee na kon moom nee mooy li ma ko gën a fonkee mooy lislaam ji mu amee fexe ba képp ku ko ku ko seen rek xam ni sëñ Matar Sylla mii ab jullit la waaye taalibe yëpp sëñ Tuubaa nee na wala kuy kuy jaxasoo ko moom it nee na da xam ni nee na walewul loolu ci kaw ba noppi mel ne neen ci biir nee na kon loolu mooy li ci ëpp solo bi nu yàlla boolee ba nëgën itam mu def ma buntam ci di sëñ Touba sëñ bi nee na pastéef bu dëggu nee moom laa xam ci moom akuk sellal goo xam ne taxu ci dara nee kon nag lépp lu mu nekk rek fas nañ koo yéene ànd ak moom ndax moom li ko war suñu diggante lépp nee na def na ko ba matale ko kon nag nee dañ koy bàyyi ak yàlla ak jëmmi sëñ Touba mi nga xam ni moo ko tax di jëf yàlla na ko dëgëral te te kàttanal ko ba yoon wu mu sóobu tey liggéeyal la sëñ tubaa ba yoon wu mu sóobu ngir liggéeyal sëñ tubaa mu àgg rëkk te te dara bañ koo dog sëñ bi nee na te wóor na ma ni yéene ji mu am ak nee na xalaat yu yi mu am sëñ bi nee na loola bu yàggee rek dana am ay résultats yu bëree bari nee na kon ñu ngi koy sant te di ko seereel ñëpp nee ñu ngi nuyu waa Wakaam yëpp ak mboolem ñim ko àndal nee na sëñ Samba Diaw mii maa ngi ko koy wax léegi di ko yóbbante ci seen Mbàkke yu mi nga xam ni mooy jëwriñu Ndakaaru gii ak li ko wër ngir mu ànd ak yéen bis bi na kon alaaji Samba yéen it ngeen taxaw ci nee na comme ni ma ni ma la ko digalee rek ngeen xam daal bisi bisu sëñ Tuubaa la ngeen ngeen ànd moom te ngeen na gën koo fonk te xam ne loo yëkkati ngir sëriñ bi rek nee na waxtu wu ne danga war a fexe ba muy gën a kawe ndax nee bu ko pësef lalee rek nee na ca kaw rek la jëm sëñ bi nee na kon nag ñoo ngi ñaan mi ngi ñaan ñu àgg ci ak jàmm kenn bañ am gàllankoor ba ñëpp teew ci nin ko bëggee na jërë ngeen jëf. jërëjëfati sëriñ Saliou Mbacke ñoo ngi ñaanal sëriñ Mountakha Mbacke yàgg fi lool te ànd ak di ko ñaanal sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou Mbacke yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal sëriñ Bass Abdou Khader mii nga xam ne ñu ngi tey jii ci biir këram di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom bernde yi ñu fi indi te mel nii dañ koo ànd ak suñuy jëwrin Ibrahima Mbuub sëriñ saaliwu ndigal Cuun yabaloon ñu fi defar ay berne yabaloon ñu fi ñu indi ko doon ko defee ni ko waajuram ba sëriñ Béthio Cuun daan defee loolee tey moo tax bi ñu yëgee nii bi mu yëgee nii sëñ Bass Abdou Khader mi ngi Ndakaaru mu waajal ay berndeem yónni ñu ñu indil ko ko waaw ni ko sëñ ni ko waajuróom ba doon defee rek saa su ne da koy defee saa bu yëgee ni sëñ Bass Abdou Khader mi ngi ci réew mi rek dina def defar ay berndeem yu yaatu yónni ay jëwriñ ñu indil ko ko barkeelu ni ko sëñ Béthio daan defee jërëjëf. waaw jërëjëf barkeb Serigne comme ni ko jëriñ sëñ waxee rek. tey jii ñu ñëwoon fii ci kër gi seet si sëñ Bass mu sëñ Abdou Khadre indi ko xéwal yi nga xamante ni sëñ Béthio daan na indil fii ci kër gi tey nag mu tombé ak euh, sëñ Saal ndigal ci nekk fi yónni ko na ko waajuróom daan defee mu defee ko nii waaye defar xéwal yu yaatu te te te te taw féexe indil ko ko ku ne gis na tey mbégum sëñ Bass bi waaw wax dëgg yàlla sant na ci bu baax a baax waaw nee na sëñ bi da koo yokk waaw la sëñ Béthio doon def sëñ Sall da koo yokk kon loolu ak cant la waaw ñoo ngi santaat bu baax ci tawféex gi nga xamante ni ñun am nañ ko tey indi sëñ Bas fekk ko ci këram gi nii indil ko xéewal yi nga xam ne moom la ko sëñ Sall cuun digal euh, fàgguloon ngir muy ab ab reeram waaw ñoo ngi santaat bu baax tey ñaan rek yàlla nañ ko fi yàgg fekk yàgg ko ko defal barkeb sëriñ Sall waaw jërëjëf. te nee na jëmmi sëñ Tuubaa tax mu di ko def yàlla na ko sëriñ bi nangu lii muy def daal di ci roy yéen way juróom ko lii ci sàkku sëriñ bi ànd ko sëriñ bi gën a taxaw yéen ànd ak moom liggéey ko bu baax a baax nee na taayam lii daan yokk na ko bu baax a baax nee na ngi koy sant ko gërëm nee na ni mu koy defalee fii ma ngi koy liggéeyal këram nga fële ca Pout waaw nee ko ko fay liggéeyal yéen ñi ànd moom liggéey bi nee na yàlla na ngeen ci taw feeg sëriñ bi def ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube feex Production ngir bës cloche bi bokk ci programme bi national international